ziar bro. yeah what's up bro gis nga maa ngi freestyle di impro di gis benn gars di ma filmé Talzamane la mooy teg rhyme ak flow gis nga yaa ngi la gis nga boy ni ma lay téye ni ma la ci kaw flow gis nga Talzamane la dafa accro si micro maa ngi teg ci rhyme gën ba jàll fii maa ngi teg ci rhyme nekk si mbedd hip hop laay teg di ba tedd Talzamane la man la maay rap di peur ama rap rappeur maay yëngal fépp demal wooy sapeur maay yëngal sa waa kër maa ngi teg ci rhyme gis nga ay xale di ma xool may rab ba dugg sa xol ñu ngi si émission sunu game teg ci rhyme gis Mr DJ gis nga booy sa brain ni ma koy TJ man si mbedd laay et maa ngi teg ci rhyme nga teg ma sa ice talsumel la am fresh like ice boobu léegi maa ngi teg ci rhyme king of the Dakar seen day saaf fu ma la fekk ci rhyme Dakar sa ay saaf la what's up Yes, yes, yes. Bismillah, bismillah. Kanaro, Kanaro, Kanaro, Kanaro. Look up, Lucep, Lulom. Crazy Cool 01, aka Fadero, aka You Under FA, aka Kalamala, aka Good Kimis, aka Wagabon Microphone, aka Yabechal. That's what I'm talking about. Kebe, Kebe, Kebe. We represent 01 crew from Daft Ghetto. Aight, my nigga. Kebe Jalis, Kebe game, Kebe Cameraman, Kebe for all dingers. Quebec Galsan, Kebe Daft Ghetto, for real. I do rap tech, let me down feel wreck, feeling a bad bad, let me jam at your tech, new brand de break, it's a corner jai break, first track I'm gonna wreck, muna rap and do eh, it, side side right away, back to the news, ben and do is a game, death and damn axa cam, like at a nepaham, nem be hushler, last king be chick ringler, let's get it, gonna free then come in, so easy all my time, I'm busy, music, mom la feel, could check a wreck my kill. Sane kii maay wéy moom laa génne le premier avril passé. parce que man tamit yàqamtigu ma quoi ay rajo ay télé affaire yooyu noonu quoi. waaw maa ngi bu ñoree. Mhm. bu ñoree gars yi dinañ ko gis quoi pour ni teel a fees si rajo yi teel a fees si télé yi moom soxalu ma ko am. lan moo la lan moo motiver nga dugg ci game bi quoi en fait lu la gën a influencé. yee game bi lu ma gën a influencé ma dugg ci mooy euh, euh, comme yéen rek parce que xam seen biir laa màggee ci sound quoi. ba may gën a nekk booy dama doon gis ngeen ni sound di def ay quelques bagages nii si koñ bi ma koy gis après loolu moom baadaloo xam nga ma gis moo après ñëw ci moom tegal ko ne ay affaire de sound dama bëgg sound nekk si ñoom di job ay bagages ñu si jàpp ñuy joob noonu ba après xam ma jaare noonu nekk M6 quoi. hip bi street education la. mbedd bi boo fi ñëwee am na education bu positif am na bu négatif. bu positif bi boo ko yóotuwee rek après mun na la génnee ci faay yu bëri. game dafa laaj benn expérience. il te faut nga toog ci banc. il faut nga am culture yu jàng. culture yu boobu noonu mun na la indil ay ouverture yu bëri. mun na la indil tamit ay opportunité yu bëri. bu fekkee yaa ngi ci game en même temps yaa ngi ci game ngay job. wala ngay jàng continuer nga nekk ci <coughs> te xam ne hip hop boo ko bëggee def en cent pour cent il faut nga am loo koy booleel suñu game buzz point sn man my nigga Jalis yes